xéewal bu mag wàcc na bàyyee ko si ñu di ko oyee December Bonanza December Bonanza wàññi bu rëy mu di ñaari dalasi si njëgi gasoil ak essence si seen bépp jaaykaayi essence ni ko dooree fukki fan ak juróom si weeri December ba fukki fan ak juróom ci weeri January saa yoo jëndee gasoil wala essance di nga am ñaari dalasi ci liitar bu ne ñaari dalasi bu ne loolu nag lum tekki mooy ni ngaa jëlee noonu ngaa dajalee te ni ngaa dajalee noonu nga feesalee sa tànki essence GNPC December Bonanza di leen jox xeeti essence bi gën si ñëkk lu yomba